ñoo gën a lam de julbeeri ñooro rey makki doom ji jàll fuuta ñoo del rey nag almaami Abdu Buukar mbokk yi ànd ak ñun ci seen chaîne bii di xam sam réew TV am nañu mbégte lool dellu siwaat ànd ak yéen ni ñu ko doore woon ci dunduk sang bu tedd boobu di maam Cheikh Anta borom gaawaan kon ginnaaw bu ñu nuyoo ziyaara sëriñ Mor Fati Mbakke moom sëriñ Alhaji Takko moom maam Cheikh Anta mi toog toogaayu maam Cheikh Anta di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko dañuy nuyu sëriñ Abdul Qadir Jili moom mi toog sëriñ Modou Mamoun di sunu sëriñ di sunu xarit bu yàgg ak nun ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko noonu itam la ñuy ziare sëriñ Abo Mbakke moom soxna Maymunatul Kubra ak sëriñ Modou Mamoun di ziare al imam Cheikh Abdou moom sëriñ Amdi May ak njabootu sëriñ Amdi May yëpp. di beral nuyo ak ziyara sering maam cheikh anta mi tok toogaayu serigne modou roqeya di ko ziyare mom njabootu serigne modou roqeya gep di ziyare serigne lamp mbakke rakam nek ci ndiarem di borom pas-pas bob sere nanu ab taxawayam ci wetu magam di maam cheikh anta moom sëñ Modou Roqeya keroog bi ñuy dajalee addiyey Daaru Salaam yi di ziare sama xarit sama sëriñ di sëriñ Amidou Mbacké di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko di ziaré njabootu maam Cheikh ante gep fasiyene delu ci si ci juróom ñettelu xaj bi jëm ci sang bobu di maam Cheikh ante borom gawan xam ngeen ni ñewon nañu ak yeen ci patch biñ fi mujjé jaarale muy suma joomul juróom ñaarelu épisode bi ba élection yi nga xamante ni amoon na fi en ci diggante Blaise Diagne ak Ngalandou juuf waxoon na leen ni maam Cheikh Anta gisoon na ni Ngalandou moo gën ci sénégalais yi loolu taxoon na mu jàppalewoon ko ci ay koppar. ñu mu sàkk woon ci moom ci campagne électorale bi ba mu joxoon ko soixante quinze mille loolee naqari woon na Blaise ba bi Blaise gagné élection yi dafa dal di taxaw ci comploté ngir naqar wa mu amoon ci jàppale gi maam Cheikh jàppale woon Ngalandu mu ni nañ ko génne yóbbu ko Sénégal may jégalu bokk yi rek ci njuumte lu ma defoon ci épisode bu mujj bi mooy dama waxoon ni gouverneur Boisson moom la ñu joxoon ndigal mu exécuté ko te loolu di njuumte ndax gouverneur Boisson ñibb si maam Cheikh Anta la fekk mu doon gouverneur ba ndigal yi nga xamante ni bii moo delloosi maam Cheikh Anta Sénégal mu bàyyi ko Ségou moom la ñu joxoon ndigal yooyu danañu si ñëw waaye en 1930 maanaam le 13 octobre 1930 arrêté bi nga xamante ni bii jëloon nañu ko ngir génne maam Cheikh Anta Sénégal yóbbu ko Mali Soudan jamono jooju di ségu booba gouverneur bi fi nekkoon moo doon. Camille Théodore Daniel Maé Camille Théodore moom moo jotoon ñu jëloon décision boobu di arrêté fukki fan ak ñett ci weeru octobre 1930 ngir jële maam Cheikh Anta Sénégal gannaaw bañ ko téye juróom-ñetti weer fii di Ndar dog koo yóbbu fi nga xamante ni bii mooy euh, Ségou maam Cheikh Anta bi mu demee Ségou ci ndigalul Blaise Diagne ndax booba am na doole doonoon na ministre su secrétaire d'État doon na nitam député bu ñuul amoon doole lool kon demuk maam Cheikh Anta Ségou Blaise Diagne moomu moo ko sabab lan lañ sàkk woon mooy fukki at lay def Ségou du lellu si senegal waaye waxoon naa leen ni ñoom ña nga doon fexe waaye sunu borom itam ma nga doon fexe ba ñu ko yóbboo Ségou 1930 wala 1931 décision bi le 13 octobre 1930 lañ ko jël. te def na juróom-ñetti weer ndar ba mu demee nag ñeenti at la fa def 1934 borom doole ju bari jooju nga xamante ni moo njëkk a takk ndomb ak tànku député bu ñuul te dooleem ak nguuram taxoon mu yóbbulu maam Cheikh ante Segu ka ko ëpp doole boroom nguur gi nga xamante ni bii du jeex mukk di jàlla jalaaluhu di sunu borom ñëw na ak ab dogalam ñi ngeen ko gisee Blaise Diagne faatu na ca France kon dooleem ju bari joojee waxoon naa leen ni ñoom ña nga doon fexe waaye sunu borom itam mu ngi doon fexe journal bi ngeen jàkkaar lool moo tàggee boroom photo bi di Blaise Diagne kon lépp lu waay di def rek na xam ni doole moom sunu borom rek a ko yor man ngaa jéem nag mu di la jay waaye dogal ba su yegsee rek kenn mënu ci dara kon Blaise Diagne faatu na ca Cambérène di dëkk bu nekk ca France ci atum 1934 moomu li ñu jàkkaar lool mooy bàmmeelam bi nga xamante ni soo demee ci sëg yiñ doon wax sëgi bétuwaar te mu nekk Soumbédioune ci buntu armeel yi foofee fa tëdd Blaise bàmmeelam moom ngeen jàkkaar ni kon bi Blaise faatoo ñu organisé waat ay jongante muy élection 1934 Ngalandou Diouf falu na doon député li wax ni la mayoon nguur may na ban Mom euh, Ngalandou Diouf Bimufalo, mu député journal officiel bingé ngeen jàkkaar lool mu génnoon ci ñaar fukki fan janvier 1934 am na ndaje moo xamante ni am na ca palais Bourbon te mooy assemblée nationale bu France boobu nga xamante ni moom mi nga xamante ni mooy Ngalandou juuf toogu Blaise Diagne boobee moo fa toog doon député Sénégal ndaje boomee ministre France bi nga xamante ni bii wax affaires étrangères moom moo jàkkaarloo woon ak député Amna, député bu ñuy wax monsieur Ramet boobu sax euh, enfin ministre des colonies affaires étrangères amagul woon ministre bi yelloo woon mbirum Sénégal mooy le ministre des colonies kon le ministre des colonies jàkkaarloo na ak député yi mu am député boo xamante ni bii moom la ñuy wax monsieur laaj bii la laaj le ministre des colonies daf ko ni monsieur le ministre Pour quel motif l'indigène Cheikh Anta originaire du Sénégal, est maintenu depuis 1928 en résidence forcée à Ségou. Madame 1928 depuis le début, le bi lam ci ministre de nga maam Cheikh ma Cheikh Anta Mbacké mi nga xamanteni bi sénégalais la lan mo waral ñu téye ko ci dëkk goodul saña bañ ci segu di Soudan français depuis 1928 depuis 1930 la on a 28 du euh, journal officiel bi depuis 1928 bi député bi dafa xamul won ban date lañ ko fa yobbu waaye li ci jublu rek moy lan mo waral loolu. kon dañoo bëgg yow ministre des colonies nga indi nu ay leeral ci lan moo waral maam Cheikh ñu génn comme réewam ñu yóbbu ko foofe nga xamante ni bii mooy Soudan français di Mali loolu laa bëgg nga laajal ma ko nga leeral ma ko mooy sama laaj bu njëkk laajum ñaareel bi mu ni ko monsieur le ministre des colonies, à quelle date il sera libéré madame, mam Cheikh Anta moomu ma la wax laa bëgg nga wax ma ban ngir mu delluwaat ci njabootam delluwaat cam di Senegal, ndaje boobu mu ngi amoon

...dans le ministre des colonies tontu li mu ni dafa am arrêté bo xamanteni bi gouverneur général de l'Afrique occidentale française di AOF mom la len waxone léegi ni len njuumte moo boisson la waaye Camille Théodore le tuddoon mu ne ko kon moo jëloon dogal bu arrêté boobu ci fukki fan ak ñett ci weeru octobre 1930 ngir wax ni dañuy yóbbu résidence obligatoire dëkk góodul sañ bañ ca Ségou nekk ca Soudan bu France euh, Soudan français ci lu toll ci fukki at pour une période de 10 ans di nommé El Hadji Cheikh Anta Mbacké coupable de manœuvre maanaam mu ni la nga xamante ni moom lañ ko tuumaal mooy dafa doon jëf-jëf yoo xamante ni mënoon naa indi ay yëngu maanaam de euh, trouble à la tranquillité publique du Sénégal loolu mooy motif bi ñu collé woon maam Cheikh Anta ci ay tappale wax ni dafa jëf-jëf joo xamante ni man naa indi ay yëngu-yëngu ay fippu ca Sénégal loolu le ministre bi tontu ci laaj bi nga xamante ni député bi laaj na ko ko ni ko maam Cheikh Anta laa bëgg nga wax nu ban motif lan moo waral ñu génne ko réewam yóbbu ko euh, Soudan muy Mali ci Ségou ministre bi tontu ko niko gouverneur général u AOF moo jëloon arrêté ci le 30 euh, le 13 octobre 1930 wax ni mam Cheikh Anta dañu koy génne yóbbu ko Ségou diiru fukki at liko waral nak moy dafa jëf-jëf yo xamanteni bi dafa mëna indi ay yëngu-yëngu wala ay fippu ci Sénégal lolu di ay tapalé ndax kuy euh, xëccoo di wate yaakaar la ngeen seq ko nga jàppale ko ci am koom te moom sax yàlla dogal na wate yooya ka mu doon jàmmaar lool doon Blaise moo gañe élection yi moo gañe wate yi kon jàppale ke nan la mën a indi ay yëngu-yëngu ba tax ñu ni maam Cheikh Anta da doon jëf-jëf joo xamante ni day tax Sénégal yëngu kon loolu ay tappale la tappale yooyu nag ka leen ci jàppale woon di Blaise léegi ka maam Cheikh Anta doon jàppale muy ngalandu ngalandu moomee moo falu ministre bi euh, ministre bi bi mu tontoo loolu tontu lu tontu loolu nga xamante ni ku ko dégré ree lay jàpp loolu moom la tontu monsieur Remet di député bi ko laajoon ni ko lu waral ngeen indi ko Mali waaye laajaatoon na ko ñaareelub laaj te mooy ni ko kañ ngeen koy bàyyi mu delu ci njabootam manam mu ñibi Sénégal ñaarelu laaj bobu li le ko ministre bi tontu le ministre des colonies fait connaître à monsieur le président de la chambre qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments des réponses à faire à ces questions écrites posées le 11 janvier 1934 par M. Raman. ministre Vini, président chambre la Chambre, président l'Assemblée nationale tontu ci na indi mam Cheikh Anta kañ lay dellu Sénégal moom da ngeen may may ngir ma dajale ay élément xool doog leen a mën a tontu ci wax leen kañ la euh, El Hadji Cheikh Anta di dellu Sénégal kon gis nañu ni ay tapalé lañu defoon ba collé motif mam cheikh anta wax ni daf doon indi ay trouble te trouble yi du dara lu may jàppale ngalendu diouf loolu munti indi ay yengu yëngu waaye loolee ci lañu sukkandiku ba jëloon dogal bii ci fukki fan ak ñett ci weeru octobre ngir génne ko yóbbu ko Sénégal bi Ngalandou Diouf falo doonub député moom ak député yi mu àndal bi ñu dajeeg le ministre de colonies ci lañu ko posé question bi laaj ko maam Cheikh Anta kañ ngeen koy bàyyi ngir mu dellu ci ak njabootam benn laaj ba mu tontu ca wax ni lii lañ ko dóoral ba indi ko ba ca des mu ni nañu ko may ngir mu xalaat ci tontu yi nga xamante ni bii tontu na ko maanaam euh, war na koo tontu ci kañ la maam Cheikh Anta di war a Sénégal kon bañu ko maye ab diir maanaam ci weeru septembre 1935 journal officiel bi ngeen jàkkaar lool te mu génnoon ci benn fan ci weeru octobre 1935 lii moo génn ci journal ba journal bi ngeen jàkkaar loolu niin ñu wax ni arrêté boo xamante ni bii jëloon nañu ko muy arrêté numéro 23 21 su fukki fana ak ñett ci weeru octobre 1936 ñu waxoon ca ni dañuy jël El Hadji Cheikh Anta yóbbu ko Ségou ci toogaay boo xamante ni daf ko fay dëkk du ko sañ a bañ ngir diiru fukki at ñu ne nag le gouverneur général par intérim de l'Afrique occidentale française officier de la Légion d'honneur moi, Boisson vu le décret du 18 octobre 1904 réorganisant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française et les actes subséquents qui l'ont modifié. Vu le décret du 15 octobre 1924 portant réglementation de la hmm, sanction de police administrative en Afrique occidentale française. Vu l'arrêté du 20, euh, numéro 2321 du 13 octobre 1930 ci gàttal mooy euh, li Anta Segou te Camille Théodore gouverneur du Sénégal mon proposé sur la proposition du lieutenant gouverneur du Sénégal vu l'avis du procureur général chef du service judiciaire la commission permanente du conseil de gouvernement nous avons arrêté Nous ne kon article 1er, il est fait remise totale au nommé El Hadji Cheikh du reliquat de la peine de mise en résidence obligatoire prononcée contre lui pour une durée de 10 ans par l'arrêté numéro 23-21 du 13 octobre 1930. Article 2. Le lieutenant-gouverneur du Sénégal est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Dakar le 7 septembre 1935, le gouverneur Boisson. Kon, le mayon Ngouri, Maynaban, arrêté le Nidjeloun, ngir Sénégal waaye arrêté wax remise de peine maanaam fukki at yi ñu waxoon ni moom lay tëdd la mu ca jot a def maanaam moom lay def euh, astafurlah moom lay def ségu ñeenti at yam fa jot a def ñu ni la ci des remise de peine maanaam bàyyee nañ ko loolu kon décision bi moo delloo si maam Cheikh Anta Sénégal la naqari woon nag muy teraange ji sunu borom joxoon mu daa ci terle ba teraloon ci ngalandu moomu ba mu metti woon Blaise ba tax ñu yóbbu ko jëlloo si niñ ko takk-takkul taal ba gën a jëm kaw teraanga ya gën a bari tedd nga ya gën a bari mu dellu siwaat daaru ak gaawaan fenn fu nekk nit ñu bàyyi koofa fa ñëw di ko ndokkeel bu ñu fàtte ni Sëriñ Falilu Mbakke moom ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba demoon na Ségu seeti ko Sëriñ Mbakke Bousso bindoon na di naqarlu dénoncé la ñu defoon en 1930 waaye bi nga la nu faloo itam buñ ko mënoon a tuddee ab lettre ouverte bokk na ci ñi soññu ngalandu ni ko nanga bàyyi xel néew ji doole yi na bàyyi xel baykat yi nanga bàyyi xel ñi ñu jël génne leen seenum réew mel na ni euh, Serigne Mbacké Bousso soññu na ngalandu ba tax mu jël décision bi wax ak député yi ba ñu delloo siwaat maam Cheikh Anta Sénégal mbokk yi kon Ndiol Anta Ndiaye borom dërëm ak ngërëm dellu siwaat na ci ak njabootam ci jàmm fenn fu nekk ñu bàyyi ko fa ñëw di ko sargal juróomi at gannaaw ba nag en 1940 ci la fekki magam ju tedd ja xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ñu denc ko ci néegam ba nga xamante ni bi Serigne tubaa bàyyi ko ci géej gi foofu la wàccoon fa Daaru Salaam kon lii mooy li nu doon jéem rek doon ko tënk ngir xamal génération bi kan moo doon maam Cheikh Anta ak tappale yi nga xamante ni defoon nañ ko ba génne ko Sénégal yóbbu ko fi nga xamante ni bii mooy sëgu kon nga tëdd tey ca pénc mais ko Sëriñ Tuubaa rafaatale woon muy Daaru Salaam waaye ma nga oof itam jëmm ji nga xamante ni bii moo ko njëkk a wuutu di Serigne Modou Mamoun toog ci xilaafa gi 1940 ba 1969 mbokk yi kon lii la ñu indi woon maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan sunu borom yàlla na nu fayal maam Cheikh Anta Mbakke te yàggal fi Serigne Mor Fati Midib xalifaam ak njabootu maam Cheikh Anta képp mu doonoon seen mbokkum taalibe liggéeyaa ko nu borom darul moxti mbay géey sil ma di leen sant di leen gërëm te di leen soññ rek ci ngeen abonné ci seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV waaye français man na Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu xammeñu saamu i cereefi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala ba ñi lekke imbulaañse daf ko ci biir ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar